gërëm suñuy ñaari waajur gërëm suñu wasila ñu ngi nii kenn ku nekk ci sa tur ak si sa santa dellusiwaat nañu fii si Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul ànd ko ak oustaz Cheikh Tidiane Gueye ak seen mbokk Essa Mbaye ci lan waxtaanu koor ñu doon waxtaan ci ngëneeli naafila ci biir weeri koor demoon nañ ba ci fukki bunta ak juróom ñett wala dem ci fukkeeli bunta bi ak juróom-ñeent waaye sëñ Cheikh balaa loolu nga may ma nuyu ñoo xam ne ñu ngi topp programme bi di ko bàyyi xel lool ku mel ni Modou Touré Dabo ci Vision Development Fund jaam yàlla la boo xam ne ah, mu nga jël alelam di ko jox jaam yi ci biir weeri koor gi ngir jaamu ci yàlla ku mel ni Sirif Tambédou Banjul Travel Agency moom ndeysaan goro la ci kër gi mu ngi topp programme bi lool lool lool ak nag suñu xarit ba Amadou Djigo Djigo's construction ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel programme bi bu baax a baax a baax insha allahu rabbi kon nag jaanu na bu la nit ki seetaanee ba wax la ko ah boo toogee fii nga gërëm ko xanaa ñu bàyyi rek nga dugg ci fukkeelu bunta bi ak juróom ñett wala juróom ñeent nga naa boo nuyoo ba pare alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi aydan alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din alxaaji Essa nuyu nañ mboolem tabarakallahu kuy seetaan Sahel Network TV nga xam ne ñu ngi leen di ziyaara di leen béggee di leen kontaane seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Gueye ñoo ñëwaat ak yéen ci waxtaanu koor nga xam ne tabarakallahu am na ni ko alxaaji Essa nuyu nuyu na ñëpp tabaarakallaahu ñu ngi ndokkeel ñëpp di leen ziyaara nuyu borom kër gi tabaarakallaahu di Aboubacar Bathily nga xam ne ak soxna tabaarakallaahu Umu li ziyaara suñu caméraman bi tabaarakallaahu béggi ko lool alxaaji Essa ñu ngi tolloon ak yéen nag ci fukki fan ak juróom-ñett war dugg fukki fan ak juróom-ñeent hmm. yow mi nga xam ne yaa nuy seetaan doon topp naafile yi bul tayal de bul yokkot ndax am na si ñoo xam ne tabaarakallaahu fukki fan yu njëkk yi rek bu koor gi xawee li yëngatu ba fukki fan yi dem rek ñu tàmbali na de xal seconda yi. waaw ñoom ñoom ñoom cekkeen cekkeen yi. Mm-hmm. ak njaween njaween yi ak njóobeen yi. Mm-hmm. bokk sama njóobeen ba rek bokk ca tabaarakallaahu. Mm-hmm. sama njóobeen ba alxaji Ibrahima Diop. am na tabaarakallaahu moom moom. Ah, njóobeen yëpp bu ñu meloon ni ñoom. ñëpp kon sant Guèye ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi. su nga xam ne mooy sunu njaatige fële ca kololi kon nga yëg ne yow mi nga xam ne yaa nuy seetaan ma ne. wéru koor wi bu mu tàmbali fukki fan yi rek nga def dara tàmbale yokkat wóorul alquran waxewul noonu alquran mu ne waabud rabbaka ata yaatiyaka al xam nga luy loolu alaajee sax jaamul sa borom yow muhammad jaamul sa borom di jaamu yàlla ba dee ñëw dikkal la kon bul def ne fukki fan yi def naa naafile yi ñu wax yi ustaas wax nii am naa ngëneel yi am naa ngëneel gu toll ni andi u yëpp seen yool yàlla jox na ma ko kon man nangam te alxaaji Essa fañ jëm yiw du fa doy alxaaji Essa fiñ jëm yiw yiw du fa doy de alxaaji Essa fiñ jëm lu bon tu du fa tuuti de boo fa indee lu baax lu toll ni àdduna danga ko xeeb a xeeb ba ne ay suma yëgoon su ma yëgoon danaa góorgóorlu su ma yëgoon benn bu ma am danaa ko xaaj bokk ko jàmm yàlla yi su ma yëgoon lépp lu baax lu ma danaa tabax ay jumaa su ma yëgoon danaa tabax ay daara yooyu yëpp tabarkalaaw nit dana ko wax hmm. waaye nit dana fa amee lu bon lu tolloo ni bën bënu pusa mu xasal koo xasal a xasal ba mel ni yow mi nga xam ne tabaarakallaahu maanaam ñu ñu ñu ngi lay audité hmm. waaw maanaam yow mi ñuy audit boo demee foofu tey boo demoon euh, masalan ci euh, masalan ci hôpital bi rek boo fa demee malade yi kenn bokkul ak sa morom kenn bokkul ak sa morom malade yi kenn bokkul ak sa morom waaye kenn ku ne métit bi nga yëg bokkul ak sa morom li mu yëg kon yàlla bu waxee loolu dana ko def kon nag yow mi nga xam ne yaa nuy seetaan bul yokkot rek laa bëgg a wax foofu bul bul bul foog ne rek yëf yi baax na déedéet dafa yomb te day teel te wóorul nooy defam góorgóorlul ni ca sa soppe ba sa sang ba sunu yaakaar tey ak ëllëg muy Seydunaa Muhammad nga xam ne ku daan jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla bañ na ko yaxfirallaahu laka maa taqaddama min sambika wa maa taqar alaaji sa loo ko nga woon looy defati jéggal nañ la li nga defoon tamasta def lu bon jéggal nañ la li nga defagul kooku ko kan la kuñ ko wax kooku muy yunt yàlla muhammad sa lépp jéggal nañ la ko su la neexee dundal ba dund sàppi la nga dee dugg aljana kooku ku ko am su la neexee yow Muhammad dundal junnee junnee at ba jamono jii mu fekkee dund hmm. bu ko neexoon ba jamono mu dund ba last minute pour àdduna tukki yàlla door ko rey su ko neexoon waaye Seydina Muhammad ne man soixante-trois cent rek soixante-trois cent rek lay dund sixty-three years sixty-three years rek xaama uhdiya mutaasan ala jalalin jalal lu rek la dund moom yonent yàlla Muhammad jalal mooy jiim tri la hmm. laam tati laam tati boo ko fawee 63 muy 63 thirty plus three 63 kon yonent yàlla Muhammad loolu la dund waaye yàlla def na ko jaamul sa borom ba dee ñëw kon ñun tamit ñun ñi nga xam ne walakum fi rasulillahi iswatun aw uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawm al axira kon yow mi yaakaar dajeeg yàlla yow mi nga xam ne ragal nga ne ëllëg sa borom dana dana da dana folli nguur yi nekkoon ci àdduna yépp kenn ku doon naan président la yàlla dajale ñëpp tëral leen ci benn ëtt ñëpp taxaw yow mi yaakaar na bés dina ñëw yarjullaaha da danga dajeeg yàlla wa yawmal axira bis dana ñëw yàlla taxawal bés bu mujj ba ne maaliki yawmi diini man maay buur maay buuru bis pinc ci tey fii ñi taxaw ñëpp président yaa ngi taxaw ay kenn ku ne da nga sëggal sa bopp doo ñemee doo ñemee siggi ngir xam nga ne tey benn buur am tey amul benn ah, gouvernement ñaar amuñ de ay américain guvernement am ay euh, Sénégal gouvernement am africain go amul benn gouvernement benn benn gouvernement moo am gouvernement ba kenn moo toog ci toogu ba benn benn kenn rek la te yëngu ne be kenn rek mooy taxaw yàlla di wax ak moom wala yàlla wax ko ne ko tey laajal loo bëgg ma jox la mooy suñu soppe mooy yonent yàlla Muhammad yonent bi nag moo ñu digal naafile yii mm-hmm. kon yow mi nga xam ne yaay déglu pour bul yaafus ci fukkeelu fan ak juróom-ñeent yow mi nga xam ne naafile nga ba àgg ci fukki fan ak juróom-ñeent wa fi laylati taasia ci guddi fukki fan ak juróom-ñeent mm-hmm. yarfau llahu darajatuhu fil firdawsi yow mi naafile ci guddi fukki fan ak juróom-ñeent yàlla day yëkkati sa daraja ba nga dugg ci aljanay firdawsi aljanay si foofu yonent yàlla Muhammad la ko yàlla yàlla préparé ak ñi nga xam ne ñoo topp moy kot bi yunt muhammad tëral ne japp len ci ma ngi dem baxee leen kot yi kot yi nak su ngeen ci jappé du ngeen sanku kot yi su ngeen ci jappé lu aduna rep rep du ngeen du ngeen dugg du ngeen dugg ci rep rep ba kot yi su ngeen ci jappé lu yef yi tak ak lu nit ñi tilim tilim yeen da ngeen set wej fa alxaaji Essa koo xam ne bi ngay ñew dal yi nga sol da set doomu aadama bi ñew sa sol dal mm-hmm. yaram yi mu andi dafa set wej deug deug nag kon wër nga góorgóorlu ba boo jotee am bàkkaar yi fexe sa yaram wu set ba bu ñu koy sang fekk mu set booy dajeeg yàlla fexe loolu nag suñu soppee ba moom moo dund sixty three yoo xam ne dàll yu weex yëre yu weex mbaxana mu weex montor bu weex everything is white mm-hmm. white la wax tudd yëpp dafa white a mm-hmm. noppi mm-hmm. mu dox ci tali boo xam ne tali bu tooy xet godoron bu ñuul ko xam Muhammad dox ci te dara taxul ko te gàkkul dara taxul ko muy yonent yàlla Muhammad kon yow mi nga xam ne yaa naafila ci fukkeelu fan wi ak juróom-ñeent ñu ne am nga yoolu yàlla day yëkkati sa daraja fu mu ko yóbbu mooy ci aljana firdawsi xoolal alquran li mu wax ci firdawsi mu ne inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannaatu firdawsi nusula yàlla yàlla yow mi gëm yow mi gëm yàlla yow mi nga xam ne yow yaa ngi topp sunu waxtaan wii yàlla ne ne firdawsi googu yow mi gëm inna alladina amanu naka ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dañoo gëm yàlla gëm yàlla la wax de waxul ñi nga xam ne ay jullit lañ de déedéet jullit ak ngëm yàlla bokkul du benn de déedéet du benn jullit laa moom ba nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kenn sañatu la jël jaasi rendi la kenn sañatu laa catti jaasi kenn sañatu laa jam paaka jullit nga soo deeyee dañu lay sang dañu lay sang dañ lay yóbbu tabaarakallaahu ci bàmmeelu gaay jullit bi hmm. boo ko waxee waaye nag ah, lu dul nga taxaw nag ne man duma ma julli wala gëw ma julli boobaa nag génn nga weddi nga la nga waxoon waaye tey yow mi nga xam ne jullit nga mooy gëm nag mooy ki gëm ki gëm mooy ki nga xam ne alxuraan daf ko utiliser ñi gëm ñan ñu gëm yàlla ñi gëm yàlla ñan la xat aflaxal muuminuuna foofu la njëkk dëgg-dëgg texe na ñi gëm yàlla mooy inna lazina amanu wa amilu saalihaati ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla e alxaaji Essa ku gëm yàlla ne gëm nga ko da nga cee boole di jëf-jëf ju baax waaye man gëm naa yàlla kan mooy yàlla leer na la na yàlla moo bind asamaanu juróom-ñaar soo laajee man sama papa bi juddoo dafa fekk asamaanu juróom-ñaar hmm. fekk fi suufu juróom-ñaar kooku laaj papaam papaam na ko fi laa ko fekk ñuy laajante ba ca maam aadama fi lañ ko fekk mm. kon ki ko bind mooy yàlla mm. kon yàlla moom xam nga ne moom moo yón yónent yàlla muhammad moo la sant lii yàlla ci boppam moo wax ne texe na ñi nga xam ne ñu gëm yàlla ñu gëm yàlla mu ne allazina hum fii salaatihim xaasi'un ñi nga xam ne suñuy julli dañuy yëg ne man yàlla lañuy ñuy jàkkaarloo mm. bu ñuy julli gis nga am na si nitu yàlla yoo xam ne ndeysaan dafa am benn mbokk nitu yàlla. Mm. moom euh, tànk bi dafa am jabet feebar. Mm-hmm. ñu war a dagg tànk bi. Mm-hmm. bi ñu demee mu bañ doom yi ñu laaj ko ak ah, kii de nu ñuy def bay dagg tànk bi mu ne leen kii daal su taxawee kabaar bu julli rek boo ñëwee mën ngeen dagg tànk bi waa ji dañ ko may ba mu kabaar di julli ba mu ne allahu akbar. Mm-hmm. docteur yi dagg nañ tànk bi te waa ji yëgu ne dagg nañ tànk bi dafa dem ba bëgg a jóg taxaw rek laajte ñu ne ko dagg nañ tànk ba nga julli du yëg ne mu ci àdduna kon mbokk yow may seetaan aljanay firdawsi yàlla dencal ne ko ñi gëm yàlla ñi nga xam ne ñoo noppi ba noppi di jëf-jëf ju baarakallaahu damay teg foofu suma baaroom ci àjjanay si boobu ma ñëw continuer ko mottali incha allah door a dugg ci nag ci ñaar fukkeeli fan. mooy fukkeeli bunt ak juróom-ñeent. Ah, ñu war dem ci ñaar fukkeeli fan bi. ñaar fukkeeli naa kon di dellu di gërëm rek borom kër gi El Hadj Aboubacar Bathily ak soxnaam soxna Oumy Bathily. Mm-hmm. duñ fàtte mukk El Hadj Idrissa Mansadane Sissoko. lii lépp kat moom la moo ñu jokkalee télévision bi. ba ñu fee bañ bañ mu fee def waxtaan bu yaatu nii ah, wax dëgg yàlla buñ toogee fii war nañ ko sant gërëm ko mm-hmm, mm-hmm. waaye nag duñ fàtte askan wi mm-hmm. ah jamiyatul tijaaniya fi hadatil malikiya ah, ahlu tiwaawan fédération ak yeneeni mbootaay yoo xam ne ak yeneeni doomu adama yoo xam ne ñu ngi seetaan programme bi xanaa rek ma bàyyi la nga tàggoo ba geneen yoon insha allah tabaarakallaahu tàggoo bu dul tàggoo nuyu mboolem kuy seetaan sexel Sahel Net TV xam ne suma xarit yi tabaarakallaahu maa ngi nuyu ñëpp mbokki ustaas yëpp daara mu mutahabbina fillaahi ndomba foo bawuma kenn góor jigéen tabaarakallaahu mag ak ndaw tudd président ma rek mu ne alxaji Omar nuyu ko bëggee ko loolu te kontaanee ko nuyu tabaarakallaahu sama xarit suma seexandoor Serigne Cheikh Ahmad Tidiane juuf waaye bëggee ko kontaanee ko ñoom saalum Saloum Cissé waaye nuyu it sama xarit nag dëgg dëgg nag suma mbokku sama wéttale muy alxaji Mass Diagne wax dëgg yàlla ma ngi koy bëggee di ko kontaane wax dëgg yàlla di ma wéttale di ma dimbale di ma taxaw ci yu bare bare bare bare alxaji Mass ñu koy nuyu ak njabootam soxnaam maam jaara waaye bëggee kontaane bu baax a baax sama jigéen ba ca bursu ba mooy soxna Fatou Mbaye nga xam ne tabaarakallaahu yaayam Adja nee na baax nga xam ne ñoo yàlla baaxal leen ñu ngi leen di ziyaara di leen bége bége tabaarakallaahu waa Talinding yëpp nga xam ne suma sopp yooyu suma xarit yooyu ñoom soxna Aïcha ñoom tabaarakallaahu moom Ramatoulaye ak ñoom caat ak ñëpp rek ñu ngi leen di bége di leen kontaane di ñaan rek yàlla koor gi yàlla defal nu lépp muy kooru jàmm waaye it nuyu waa Pakaaw Njóogu du leen fàtte nga xam ne foofu laa jógee ah di ñaan yàlla tamit daara yi yëpp daara yi cancel yëpp yàlla ubbi leen alhaji Essa tabaarakallaahu daara yi tamit jar na di ñaan yàlla ubbi daara yi ndax am na xale yu bëri tabaarakallaahu ñu ngi leen delloo jiwaat seen kër yaay yi hmm. pour tabaarakallaahu ndax ci li ngay jàngale ci ngay mën a jël di dund di leen dundal yooyu yëpp nag tardement la te am na si si way jur yoo xam ne amuñ doole joxoon la yow yëpp tamit ñu ñaan yàlla ubbi xaat lépp waaye nuyu nag njiital réew mi mooy alhaaji Adama Baro ak mboolem kuy liggéey ci gouvernement bi di leen wax rek maa ngi leen di joxe note banque fële tabaarakallaahu ca ëpp ñoom mi nañ koy bàyyi xel fexe tabaarakallaahu tali ya ñuul courant ba ñëw. bu loolu amee rek incha allah gàm bi yëpp ca kanam wasalaamaaleykum. wa rahmatulah jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf